su ma jógee entraînement euh, damay dem fubal yi saal laa jëm nii bu ma jógee saal damay fubal yi ubbi naa post bi léegi fekk naa fa police yi fekk nan ma mi ngi nii voy baa ngi nii 9h laa war a dem wuy ji mi ngi nii le 19 à 9h laay dem incha allah police dem wuy ji mi ngi nii sànq laa ko fekk gàlle mu ñëw 9h lan ma convoqué le 19 juillet. pour déglu sama euh, version lu nu bind ci kii Nous nag nu français parce que lii allemand la lu nu bind ci feuille bi li dans l'enquête violation des droits de la personne par la publication d'images votre interrogatoire en tant que suspect est Riquet. Vous êtes donc prêts. Vous présentez à 9h le lundi 19 juillet 2021. léegi veuillez me faire savoir à la France si un interprète est nécessaire pour une langue particulière non non ce que Je naa allemand mën naa affaire ngi 19 juillet 2021 Capo Boss dina wuy ji police incha allah